jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nu yooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñu leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci benn baraak wala Malika ñu ngi ci benn baraak tey am loo xamante ne xibaar la bu ñu dégg ci benn site internet ñu wax ko ni armee bu benn baraak ñu ne caabi daf ko féete ginnaaw ndax dañ ko jàpp démb ci benn agression loolu nag la ñu dégg wasaare làmb daw ñoo seet si armée fi ñu ko fekkoon bi ñuy def ak moom émission buñ ko fi fekkee baax na buñ ko fi fekkul fekk fi mbokkam yi nga xamante ni fekkoon nañ leen fi waxtaan ak moom waaye lépp bëgg nañ mu leer ndax lépp lu dal mbëru làmb dal nañ ñun wasaare làmb ndax armée ci làmb la bokk mbokk yi ñu xool ko sëñ Bas kaay. let's go sëñ Basiru <laughs> taalaa ngi noonu de taalam bu arme waa waa kii taala fii place am la quai lii sëñ Bas <laughs> lii moom mënu ma koo gëm dompat ma ma xool ba dompat kay bas géntuma de kii armé la de ah. dama yaakaaroon damay gént de comme li ma lay wax ci biir taala maa lay Baye Jili naka la yaa ngi ci jàmm waa daan naka waa jàmm ak salaam rek waaw ñu ngi am tawfeex jortoon naa ne su ma ñëwee sa place dinaa fekk armé waaw waaw waaw moom moom boo koy seet moom boo ko gisul ci town bi moom ñëwul fii ba ñëwee boo <laughs> waaw dom see Baye Jili naas ko yaa ngi ci entraînement yi ñu ngi ci entraînement yi ah. ñu ngi ci kaw bu baax a baax waaw champion nga dëgg neexul ball <laughs> lim lay ñaan mooy nga taxaw rek kooku du tuus du paas. du nga ne lan gëmmal ma toox gumba koo xamante ne avenir àdduna ba mu commencé bëree di lit avec frappe lit sans frappe musul am tànku arrière nga naan ko taxawal moom day laaj wala daa bëgg a xam. li ma war a def lay laaj wala. ba nit ñi di jàng xeex nee naa la di jàng déplacement latéral gauche arrière barki maam Serafal jànguma loolu. en avant sa kanam yox la dem jëli ko. da gis ne bu arbitre ne prime moom moo fa bàyyi boppam na taxaw rek. moo tax ma lay laaj day laajte wala dafa bëgg a xam. bu dawee ma fekk ko. bu taxawee. ma fekk ko fa. xeex wala bëri. léppay am. mais lu mën a xew balaa ñëw bëri dinañ xeex. yoon mu daanu yomb na ci combat. waaw li may liggéey yaakaar naa bu ma ko dalee bu dalee ci sama coup bu ko dalee benn bu ko résister ma xam ni gaynde la. waaye ñëpp dañoo mànkoo nekk ci ginnaaw Fils de Balla. suñu mafia wa ngi nii. ma fi Talla Diop yëpp mànkoo taxaw nekk sunu ginnaaw te tapetuñu loolu. général a gi loolu. bu Malika mbër mi de mu ngi wuy téléphone. parce xam naa ne mbokk yaa ngi koy woo am di jàmm yeeg ñëpp a ngi woote. xibaar bi daa rëy. si Thièye Mbër. ma ngay wuy téléphone de sañ bas la muy la muy wax xaw ma lu mu doon. armée bu benn barak di waajal bis bu rëy digganteem ak Feugeula bu Lansar nga xam ni combat boobu combat la mbër maa lay ziar. maa lay delloo ziar Dof yaay. sant Serigne Touba wér. sëñ Bas ma xool tuuti. ah sëñ Basirou. waaw ah, moog sëñ Jili de bu ñu àndee lu neex rek la ñuy teg si taabal ji. naka sant yàlla bu wér. jortoon naa ne su ma ñëwee place su Talla dinaa la fi fekk. billaahi du hasard. oui. <laughs> dëkk baa ngi rek di ñàkk solo. war nañoo mën a toog ràccu. waaw ràcc toog am lu ñu waxtaan. am na loo xamante ni yëg nga ko. Mhm. li tax ñu déplacé wu fi ñëw fi. Mhm. waaye faw ñu toog waxtaan ci. wallaay wallaay wér na. sëñ Bass kaa ñu toog ñu waxtaan ak moom. man ngay waxal man bandi bi. armé balaa kii dinaa ko naan. armé ma la wax yow mënoo ci man cent franc. dégg nga li ma paa wax léegi. loxo xale ak ma xam nga nan la fa demee. bilaay kii dinaa ko duuma moom su ma nee ko dinaa ko duuma sax moom gëm xam nga lan la ma wax léegi xale ak mag mu ngi mel ni lan dëgg fen yàgg yàgg dëgg ci kaw fen ci suuf. baax na di wax yow la waxee saake ba mu la waxee loolu waroon nga koo xam ne mag waroon nga ko wax mag. du yàlla waaye yàgg na yàlla. waaw yàgg xale am na fekkee ci yàlla. loo bokk ak tubaab bi lu mu wax. yàgg. waa kon baax na ak tubaab bi man ak yow lañ wax Talla Diop armée. dinaa la si arrêt de gauche wala droite. droite daal di ko pang di xaar mu ñëw nag. ak fàq la ba ngay bëgg a dee fii. Eh. xam nga li ma la wax sax yow dootuma la may dara. xam ah, du ko jëli. <laughs> koy jël. jiili kii dinaa ko. misil bi ko daa benn nga jël benn. misilam dina ko teg ci suuf. man maa ko man maa ko doon jox. misil bi bal bu mu dóor bu mu dóor man maa ko jox. Ah, bal bu bopp laa yore léegi samay balu bopp laa yore. nga xam ne yoo yoroo bar bar original bal foo nga yor. jërëjëf mbokk yi gis ngeen loolu la loolu la demee Armé ñu ngi ko fekk fii ci place Talla ndeysaan mu toog ñu waxtaan mais Armé maa ngi lay nuyu. jili fay naa la di nuyu mbokk internet yëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla Sénégal yàlla si jàmm yàgg di ñaanal suma nawle yi ma nekkal ku ni général ay euh, waaw sama sama gaay sama waa écurie ñëpp yàlla may leen ndam yàlla may ma ndam sama combat bi ma jëm tamit di ci woo ñëpp. waaw di bëggee ñëpp di jaar ñëpp. tey làmb indiwuñu fi. waaye li li xew dañ koo yëg te ku tudd armée tudd làmb te ku tudd wasaare làmb buñ ko waxee làmb tax kon mbëru làmb yi ñoo koy doxal tey ñu xëy gis benn xibaar bu mag bu benn sit internet titré ne armée dañ ko jàpp démb ci benn agression ba caabi féete na ko ginnaaw yëg nga xibaar bi wala yëgoo. waaw vraiment yeex naa ko yëg man sàll ma appel yi commencé daal kar kar kar kar fu nekk tey li ma ne xaw ma ko waaw de man leen lan la ñu ne ma waaw dañu yëg dañ dégg ne danga doon agressé ban téye la man leen man maa ngi wax ak yéen nii maara day taal loolu la yàlla na ma ci dégg doy waaw te loolu c'est pas la première fois ñu def ko man damay ñaan yàlla yàlla buñ ma gis ci loolu ñu ma yéene te man yaakaar naa képp ku yëkkati information surtout maag lu toll ni agression di ko teg ci deru doomu aadama war nga vérifier ba mu leer la mais police ba laa jógee nii léegi gis naa commandant bi wax ak moom mu ni ma fii benn site jegewu fi waaw kon ñooñu yaakaar naa buzz lañ bëgg mais duñ ko utee nii fan yële passé ay deux mois trois mois génn naa voyage dem Gambie mm, benn agression am fi ñu ni armée moo doon agressé ba rey gardien bi dajji kii bi sama mbokk yëpp jaaxle ñu ñuy xamee waa pourquoi ba kañ man man ku nga xam ne du doo dox ba gis ko mu génn guddi ramas sax musuñu ma koo def ci billaahi wallaahi taalaay musumaa taxaw police di ñaanal sama benn booy ñu buñ jàpp sama lam wala ñu ramas ma sax man chaque jour ñuy yëkkati deux fois du du ñett nag nit boo demee bay wax ci moom war na la leer lu toll ni agression doomu jàmbur fameem yaakaar ko xamewuñ ko lenn li chaque jour ngeen wax lu nga xam ne dara amul mais lii ba kañ xam nga yow li nga def nii lii geste noble la journaliste noble la war a doon lépp lu muy duggul leer mais bëgg bës di yàq doomu aadama yàq réputation am fi mu toll nii fa mën a yegg du man yeggu fa. vidéo bi daw na partout dans le monde la mu def la mu def. léegi man fan laay seetee ci àdduna. léegi yow xibaar bi kon c'est pas la première fois ñu dégg armée ñu bindal ko ci lu mel noonu dañ cee mës a taqee wala dañ cee mës a laale wala da mës di ànd ak ñoo xamante ni dañoo bokk ci loolu ba Sidi saa yi ñu xëyee rek dina bindal loolu nga xamante ni amut ci yow. billaahi wallaahi wataalaahi déggoo li ma la wax musuma taxaw police pour jëli nit sax pour ñu ramaas ko musul am. ba ma dalee bëre ba léegi nag laa wax waxantuma man sama jëmi bopp man ñu may ku wax waxu ramas affaire saa taxul ñuy wax ñun doxuñu ci yooyu man supporteru noobul laa yor lu ñuy bëri bëri macha allah xëy liggéey lañ xam liggéey jaamu yàlla. déggoo ma la wax li amoon côté caaroy kaw la benn mbër liteur ñu naan mbër bu siiw jékki-jékki ma dégg rumeur daw arme arme mais ba kañ ku nga xam yow du ànd ak sax kuy tux waxantuma nag leneen. mais lenn li tooñ nit ki la. site internet boobu bind la da nga mës di dégganteeg ñoom wala mës ngaa def interview ci ñoom wala am na kenn koo xamante ne xam nga ko ci site ba ngeen di déggante yéen ñaar. wallahi tey laay soog a gis site boobu man benn bi ma ñaar yi ma ci gis du ñaari site sax ñoo ko publier mais ñaar yi ma ci gis tey laay soo soog a xàmmee site yooyu te boo bëggee moom wax la ko. muy Sénégal set ñoo bind wax wax yu bon yu garaaw ak euh, Opera News ñooñu xawma kenn. waaw mais ñoom it bu ñu demee bay kii nañ dem si commissaire bi wala ñu dem si commandant bi laaj ko wala ñu ñëw ñoom bu ñu bëggee contacter dinañ xam sama numéro ndax yaakaar naa ni sama numéro mënu fee nëbbu mais yëkkati lu ñaaw teg ko ci doomu aadama pour bëgg buzz wala bëgg wala bëgg sa affaire doom xaw ma maa ngi soog a xam dégg site boobu man sama jëm boobu man site yu wóor yi laa xam ay wasaare làmb ñi nga xam ni lépp lu ñuy wax dafay leer lépp lu leen leerul duñ ci dugg taqal doomu aadama di teg ci deram bi tuuma bu nga xam ne du xam fu mu koy weddee ci àdduna loolu nañ xool ëllëg bu leen ko alal jaral waaw tooñ baaxut tooñ baaxul te tooñ nan ma ba ci kanamu yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom aw ma doole bu ma leen toppee di yéeg ak a wàcc di porter plainte ak yooyu mais yàlla mi nga xam ni moo mooy borom doole yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom tuuma ji ñu teg si man yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom kon li sama papa Assane Ndiaye doon wax naan nit a ngi rey moroom nitam ngir alal kon rey nit du dangay jël paaka rek jam ko waaye nit a ngi waxal nit loo xamante ni rey nga ko bu deewee yow yaa ko rey. wallaahi alazim man gor su set wecci laa ñaari goro ma jur ma juddu ñetteel leen am na yoo xam ne sama dignité mayu ko lenn li boo ko waxalee nii rey nga ko ndax tey man man fi ñu jaar yëpp man mënu ma faa jaar di weddi tey xoolal sama mbokk yi kenn kenn yenduwul ak jàmm ñii ba Europe ñu may woo billaahi wallaahi taala appel bi ma doon wuyu léegi sama per saake moo ma doon woo ambassadeur Allemagne moo ma doon woo moom nee na bien vrai bi mu ko gisee xam na ni lii du dëgg mais na ma woo rek xam nu mu demee ndax mën nañ ma man ko man damaa yëgul sax yooyu koo xam jili bu re bu xasee jóge entrement dugg këram bu génnaatee fajar la entrement wallahi nit du dox ba gis ma te nekkuma di dem programme wala wala may dem entraînement amul aw soxla ci yenn yi nit ki lu muy wax lu muy wax na ko leer nit du sos du tuumaal as gor ñooñu buñ ma mënoon a rey fi mu toll nii dañ may rey ki def lii moo mënoon a rey damay rey ndax lii rey ak rey nit yaa yam rek. wax ji daf maa jaaxal ndax armée bi mi ngi koy gis nii. mu ngi préparé komba bu mag diggante mag Feugeula bu Langsar ma nga fële ci États-Unis di préparé komba bu yëgee lii dina doon leneen loo xamante ni jàpp naa ne jàmm rek la siq ak te jàmm rek la ko yéene ndax nekk na mbër moo xamante ni mbër mu baax la mbër mu rafet xol la ñu koy nuyu ab au passage Feugeula borom États-Unis sa adversaire tey bu yëgee lii est que du am lu ko metti wala du jàpp ni. duñ jàpp ni ñi ñi def li dañoo siq sa adversaire dara ci làmb ah peut-être yàllaa xam loolu moom li ñuy wax laa wax lam xaw ma am na lu leen lii wala dara en tout cas man damay dalal samay xelu supporter samay xelu am di jàmm leen wax ni ñàkk du ma tax a ci yu ma xamul wala goree di déedéet damay gore ba ba may dee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jur nañ ma fa ma fañ ma war a juree yar ma nañ ma war a yaree jàngal ma alxuraan ba ma wàcc jàngal ma ma xam sama diine xam li ma sama diine may ak li ma li ma li ma mayul wallaahi te ci loolu laay dox soxlawu ma dërëmu doomu aadama ku dul for di lekk kon waxantuma laa dem di nangu alali jàmbur di ko jariñoo xalaatuma ko ci àdduna ndax duma jàng xam li yàlla wax ba pare tourné di ci teg sama tànk yàlla tere waaw mag nga ci ki nga xamante ne mooy général bi nga xëyee dégg xibaar bi euh, nan nga def. waa ji li ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu réseau internet yëpp. Mm-hmm. di wax a ah, xibaar bi moom comme ni ni ko ñëpp déggee lañ ko déggee rek. am ci naqar trop parce que tuuma dafa rëy. Mm-hmm. lu toll ni affaire agrection moom bu nda ko waxee te defoo ko wax dëgg yàlla di nga ko naqaru ba naqaru fa naqaru yam. Mm-hmm. waaye nag yàlla mi nga xam moom dara tëwu ko lan koy bàyyi rek waaw mais nag maa ngi lancé euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk réseaux sociaux yi bu ñuy wax ci nit wala ñuy bind ci nit nañ ko gëstu ba mu leer quoi parce que mbër yi ay doomi jàmbur lan danoo am ay yaay am ay papa buñ leen tegee lu leen naqari day naqari seeni i mbokk kon donc nit ki lépp loo xamante ni si yow buñ la ko defee du la neex euh, bu ko def doomu jàmbur ndax suba ba léegi waxuma la moom mais man mi maa ngi déglu fu nekk appel armée li mu def armée li mu def armée li mu def te yàlla xam na ni démb maa ngi moom ñoo nekkoon doo école mu entraîné ba pare ñi ma maa ngi ñibbi ma ñibbi mu ñibbi ma xëy suba dégg réseau yi wax loolu ak franchement waaw metti na ma loolu wax dëgg yàlla waaw di rafetlu ma ko daal wax dëgg yàlla rafetlu ma ko ci journaliste booy dem bay bind war ngaa xool li ngay bind moom mooy lan booy bii ñoo ko yar xam nañ ne jur nañ ko fi ñu ko war a juree te yar nañ ko ni ko war a yaree te diiru ñuy ànd ak moom amut benn tànki caaxaan wala kàddu yi caaxaan wala jëfi caaxaan yu ñu ko xamee mosul am moom boo nekkee caaxaankat sax te yàlla boole la ak moom mu gis yow affaire ñàkk fayda yu toll ni tarafatul ay da koy da da lay ba nga xam ni moom lii ngay def ni bëgg ko waxuma la nag moom muy nekk ci loo xam ne naka sudul noonu waaw moom daal li nga ko xamee mooy entraîner bu paree ñibbi na këram fu ñuy defee wala fu ñuy waxee moom fekkewul yëgul tinut waaw. G. sa doomu ndey nga xëy dégg xibaar bi nga xamante ni site internet bind nañ ko ci moom boobu fu mu la fekk yow. moo entraînement lañ fekk. xam nga di profité ci occasion bi rek di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu àdduna di nuyu monde làmb xam nga di leen wax ni comme information balaa ñu koy joxe nañuy bàyyi xel quoi vraiment armée ñun ñoo nekk ñooy nekkandoo entraînement ñooy ànd suba ñoo démb ñoo àndandoo matinalu xëy ñu ngi déggante waxtaan nekkandoo saal mais kii dama naan sax yorul xolu mbër barki alxuraanul karim ndax li nekk ci moom dafa dafa bëri armée du dugg lu ci yoonam nekkul tey mën nga ànd ak moom ngay wax ak nit nekk ci lu yoonam nekkul yoonam nekku ci armée du bàyyi xel yëfu jàmbur. nit sax day ñëw bëgg ko naan ko ñëwal ma defal la teraanga day sax toog maa ko naan arme del dem ci ñii ñii dañ laa bëgg ak affaire yooyu ki nga xam ne nit ñi sax dañ lay woo pour di la defal lu baax pour nga sax dem problème la di nga xool alalu jàmbur naan da nga koy jël wala ba naan da dem di agressé armée esprit am dépassé na loolu du moom mooy xalaat loolu noonu li may wax rek des fois gars yi buñ bëgg yenn yenn vie wala yenn gem yi bay dugal information yoo xamante ne jaaduwul barki arxuraan xam nga nit balaa ngay seede nit ki da nga koy xam kii mën naa seede ci moom lu bëri ndax ànd nañ fu ne bokk nañ fanaan nekkandoo nañu mais yàlla xam na ne laa lax bokk leen sax tëdd muy lu ñu war a lekk nga teg ko boo ko newul armée lii yoonam nekku ci kon gars yi nañuy bàyyi xel loolu armée nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku xam boppam la nit ku fonk boppam la tamit ku gëm boppam la des fois dama naan ko yow li li la sonal ci làmb mooy ni nga baaxee baax gu ëpp gi yow da ngaa baax ba àdduna yëpp di seede sa mbaax te des fois sax ngay ngay bañ yenn yi quoi yaa ngi dégg te moom mooy loolu xol bi dara nekku ci xol bi dara nekku ci nit ku baax la nit ku yaatu la du dugg lu ci yoonam nekkul kon gars yi ñuy bàyyi xel yenn yenn détails yi tey ñoo nekkandoo woon saal mais appel yi day day day appel ba man sax damay mujjee découragé ma ne ko lii léegi tollatul foofu nañ jugal ñu dem. ñu ngi nii depuis suba lañ nekk en entraînement mais police Malika lañ jógee nii léegi léegi ne information yu ñu dégg nu mu demee noonu commandant recevoir ñu ñu toog waxtaan mu ne leen loolu amul dafa am beneen booy boo xamante ni xaw ma Babacar nan la tudd moom lañ doon woowee armée booy booboo def benn plaignant gars yi ñëw jël si ko fi yóbbu gars yi bind def armée ma leen information bu amatee gars yi nañuy leeral quoi ndax armée nit ñi dañ koo bëgg te ko tuddee boppam bëri na mais moom turandoom yëpp xaaj bi na seen numéro te day déggante ak ñoom mais ki wax sax amaana moom maîtriser wu ko quoi mais lii problème bi nag mooy yow a yow a du man yeggu fa xam nga li ngeen di def nii am na ñoo xam ne dinañ amaat temps seetaan ko mais am na ñoo xam ne dégg nañ information bi rek pare nañ ci quoi suba mën nañoo bañ a gisaat beneen information après mën na génnaat ñu koy xoole image boobu noonu te amaana moom tollul foofu noonu yàlla xam na ni waxuma la Sénégal rek mais appel yi muy recevoir extérieur Europe ci diaspora bi mënuma la wax nu mu toll kon affaire bi garaaw na quoi. vraiment laa bindal lu mel noonu yow. man non non musul am ñun yàllaa ñu boole taala mi mooy suñu mag. barki alxuraanul karim su ma bàmmeel laa toog duñ sax foowee tux tey jii bu ñu àndoon des fois dañuy nekk sax entraînement nit fekk ñu fu ñuy entraînement we ñu bëgg ne ko eh dañ fiy jóge taal danaan ñu eh seen yoon nekku ci. billaahi wallaahi du ma bàyyi ma fenn. déggoo ma ndax entraînement mooy suñu liggéey di suñu métier danaan ñu bàyyi leen ko nit sax dañuy daje ak ñun des ci wàllu kaf ruube mën a ñëw eh bu leen wax. duñ tooñ duñu xuloo lu suñu yoon nekkul suñu yoon nekku ci ñun ay noobul lañ ñu gëm suñu bopp lañ ñu xam suñu bopp lañ ndax danoo xam li topp suñu ginnaaw xam ñi ñuy bàyyi xel ñun duñ dugg lu suñu yoon nekkul duñ jël alalu jàmbur lu suñu yoon nekkul suñu yoon nekku ci quoi vraiment ndax tamit kii nii bàyyi itam yëpp ñu topp xam na ñun ñooy ñan amaana buñ meloon neneen kii responsable la ay njaboot la yor day jug 5 heures du di ànd ak ñun amaana bu xamoon ni ñun mel nañ neneen du bàyyi ay itam yëpp di ko passé ci ñun ñun it am nañ ay mbokk ay famille na xamoon ne dañuy nekk ci naka sudul noonu du ñu topp du ñu bàyyi xel ñun ay ambassadeur lañ fi ñu dëkk kon day am yoo xamante ne na ci gars yi di vie quoi ndax mbër noobul la quoi vraiment. jaajëf Zé ciy bàyyi xel. ndeysaan site internet bi wax loolu. tey lan nga koy wax. ah waaw am lu ma metti lool. Mm, sama mbokk yi ñenn ngi naan topp leen pelante leen ñi naan nii mais man taluma loolu maa ngi tal nu ma daanee fëgg la ak ci yi ma jóge nii war a entraîner war wara récupérer war nekk sam bopp taluma di yég ak a wàcc ma leen di wax rek lancer leen appel nit ki lépp lu muy wax ci mbokkum jullitam wala sax boo dul jullit lépp lay wax sa moroomu nawle na la leer ndax wax day dem bal la surtout maak vidéo fi mu toll nii foo dugg ci internet bi gis loolu mën mën mën nga mën mën nañoo bàyyi mu sedd sax mais chaque jour nit da koy gis jàpp na lool lu amoon la. Mhm. yàq réputation nit nañ ko dindi ñoom ñi ko dugal. nañ dindi loolu te xam ne dañoo juum. Mhm. waaw bu ñu yàq nit ki ku yàlla baaxal nga bëgg ko yàq. juum sax nangu ni juum nga dara newu ci pour man juum nañ def nañ armée bind nañ ci liñ ciy bind juum nañ nañ ko dindi et àdduna ñu continuer la vie commence. waaw ñoom ñi ko bind yëpp si yi ko bind yëpp. ñu dindi ko xam ni dañoo juum. amul kenn ku ma si woo sax ne ma ah mbërkat juum nañ wala néeg naa te man maa ngi dégganteeg plus 30 sites yu nga xam ne ñu ngi fii Sénégal ñu ngi may woo na ma ah liñ dégg nag man leen loolu amul te ñoom ñi def loolu ñëpp dégguma ci kenn ku ni ma fii laa bokk kon am na lu nekk ci suuf bu nekkee nag dañ ma bëgg a tojtal wala ñu bëgg maa yàqal noonu nañ jaar beneen côté. man taluma leen tey mënuñu ñëw ba waxtaan ba jóge fi te waxtaanu ci ci li nga xamante ne bis bu nga koy préparé sa digganteeg fëgg la. Mhm. ñu dégg ni combat bi taxaw na kan moo tëgg combat boobu ak ban lañ ko jàpp. waa sama combat ak taxaw na prince moo ko tëgg. mu ngi ko jàpp le 31 mars euh, mai. le 31 mai. di ñaan yàlla yàlla suturaal ma may ma si ndam rek. waaw ñu ngi ci wàccaay ànd seeg suñuy grand suñuy xarit suñuy mbokk ak suñuy mag ak suñ ñëpp daal. di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu ci bis boobu. champion bu mag ngay bëreel fëgg la. mu bëreek double moteur gis nga li ci xew. ma dem États-Unis préparé wu ji avance bi ba mu koy jël mu ngi ko fekk États-Unis muy root ban yëg-yëg nga am ci moom ak lan moo tax nga jël fëgg la. waa jili làmb fi mu toll nii boo déggee ku naan la yaag diw sax da ngay sant yàlla làmb doxul. pour ñu waxante dëgg. armée da daan tegale dañ ko daan jox avance mu jël beneen avance pour bu bëree bi bëree bee. mu dem ba làmb tëj ba tijji bay xaaj amul avance kon làmb am na nu mu demee te ku ñu xam-xam ne ñun dañuy feesal esaat buñ baakoo bu neex buñ bëree mu neex kon bu ñu proposé fëgg la te day liggéey ñuy liggéey rek dañ koy jël dañ koy jël yàlla dimbali na ko mu mën a nekk États-Unis ma koy ñaanal foofu mu nekk si jàmm maa ngi gaal seen fii di liggéey yàlla mayaguma moyen bu ma demee wala ñu ma mën a jàppale ma dem maa ngi fii di liggéey rek di ñaan yàlla sutura waaw may ma ndam si kawam. combat kon Sénégal nga koy préparé ci ni ma déggee wax ji. ah moom laa pareegun pour préparer ko fi. waaw jàmm bi nag li teew la xam xamagul li xew ëllëg. waaw vraiment fii laa koy préparé gun waaw. parkindaa bi am na loo xamante ni mun la ko jàppal ndax nee na moom du benn jaarukaayu benn xale. xale bu bëgg a jaarukaay da wuti feneen te armée moom xam naa ne buñ dalantee man a moom dina xam ne man benn xale du ma yeb. loolu la wax ah damay ragal waa xale la wax man du ma xale kenn du xale kenn te bu bis baa dina xam ne ma ngay bëreeg moom waaw lu làmb ji laaj dinaa ko def waaw ah, ndam rek moo ma ñor waaw ah, amul leneen lu ma ñor lu dul ndam te maa ngi ciy dox moom lay tëddee di ko yeewoo. ku ne xam na ni fëgg la dafa bëgg xeex est-ce que pare nga pour taxaw xeex moom. lu ma ciy ragal xam am na lu ma loo ma laajoon fii nga ne ma ba xam xeex nii naa du ma jóg pour xeex ak kenn mais ku ma bëgg a duma ma sifaay la loxo lañ yor loxo laa yor dóor fayu dama dul xaar kenn di ma dóor sax waaw wax ji loolu la. jàppante bëre bu ngeen jàppante am nga sens ni mun ngaa am dara ci kaw fëgg ah bien buñ jàppante mën naa am dara buñ xeexe mën naa am dara bu lu may xalaat ci loolu waaw ah, waaye yow li ma sama benn magu mag wax léegi rek xale ak mag dëgg fen la nañ ma baal ci kàddu gi waaw te dëgg moom yaakaar naa ne fen du féete kaw mukk waaw na leer waaw loolu moom na leer man ak moom bu buñ tëjee barrière yi lépp day leer waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci ci ci ñëw gi ñu ñëw fekk la fi nga nangul ñu ko vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw am contentement trop. billaahi ci waa ci waa wasaare làmb ndax lii mën naa ne lu rëy la ci man dégg dara xam ni lii kat balaa ma cee dox néeg naa nga ñëw woo ma leerlu lii lii lii geste noble la seen site bi li ma leen doon wax rek. yàlla doon tele ndax bu doonee télé njariñu réew mi lay doon yéen yéen doxu leen di yàq ay doomu aadama waaw yéen yéen a ngi dox ci lu baax di wax lu baax maa ngi leen di suivre xàmmewu leen mbër mu mag xàmmewu leen mbër mu ndaw chaque jour ci liy jógal làmb ak luy doxal làmb ngeen nekk yàlla na leen yàlla kàttanal yàlla leen yàlla jàmmal wasaare làmb moom moom senegal jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la champion bu mag bi wax. muy armée bu benn baraak mbokk yi dama leen di xamal rek ni àdduna moom yéene balu teng si la boo ko dóoree ci miir day dellu si waat sa kaw lépp lu waaye di yéene nit rek yàlla na doon jàmm Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar boo xoolee réew mi àdduna bi sax dëkk yi ci gën a ndaw Sénégal ci la bokk kon lépp lu ñuy waxante rek nañ ko seet seetaat ko ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko armée balaa may dem damaa seeti benn mbër. Euh, nu mu tuddati mbaytin 2. ndaysaan mu yëngal ma ma am lu ma yëngu ba Sénégal gépp xam ne jiili mu ngi jàng maa ngi répété fecc yu neex. Uh-huh. ma demaat ci booy bi nga xamante ni mooy Ibou mécanicien. Uh-huh. mu jox ma. Uh-huh. tey ma ñëw fii fekk la fi ak Zier dañuy taxaw fee géew ko boo dooree jox ma Zier door jox ma ba door ci digg bi. ay ca sëñ Bas. <laughs> Eh, Zier kaay lii ñëwal tey laa koy dooree man ñëwoon dee da nga ñëw fii ñu taxaw si kay fan la ñuy taxaw alors waaw li ñuy taxawee cëm maa ngi nii garage daal maa lay woo maa lay woo léegi message ñëw dee kay taxaw bii lañ lay may ratatatat mais da ngeen may da ngeen may jàngal da ngeen may def ndànk du ngeen ñëw na di ma sorxo sorxo ñu dem gars yi nee na voilà ayca. bi leen lay yóbbu. armé. nga jël gi gi teg teg teg teg boobu moom fu ma jaajëf mbokk yi mbër maa lay siyaar bu baax a baax a baax maa lay jaajëfal waaw yow ñu dem see ren ren ren ren ki dem ren ren jaajëf sama gars yi maa leen di bëggee bu baax a baax a baax ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf